amul làmb jooj ba may dem amul benn mbër boo xam ne xam nga souvent mbër yi dañ koy faral di wax naan diw daa waajal diw mm. wala diw da koo préparé barki alxuraanul karim amul mbër boo xam ne ba may dem ci làmb préparé naa la waaye siditu làmb bu nekk si man la rek ma gëm ni dama war a dem bëre ma dem bëre ji mm. mais nag mu doon làmb ju neex ñu dem fa rek fekk fa rek rek mais man ba ma ko fekkee ci làmb ci xam naa ni tôt tard maa moom dañuy bëre mm. ndax làmb ji neex na gars yi di yëngal te ku ma xam ci làmb su ma demaan damay ma ne teg réservé wu amateur yi naan da ngaa a man leen tey làmb ji daa am lu laaj ma gën a concentré wu ndax des fois da ngay dugg ci làmb lii xam ni ñaari adversaire yi ak lu mënti xew di nga bëri ñoom. te booy bëri ñoom daa am noo war a bëri ñoom ci la réservé wu ñëw toog xaar maa moom nag ñu bëri làmb ju neex ndax su souvent damay faral di wax naan Reug Reug. fa ngeen daje ban huitième de finale te Reug Reug. huitième de finale waaw Reug Reug doon mbër boo xamante ne mën naa ni monument la. làmb simple moom dootu ko fàtte. ndax lim fi def. Mhm. vraiment ndax wax sa baax waaye di wàññi ci sa mbaax dara. sampion mhm. bu ma nangul sampion la. aussi tamit di ko nuyu de passage. Mhm. li tax may wax ci moom loolu. tey dañoo ñëw ci làmb ji ndax man mbër yi ma daan gis ñuy bëreeg rëg-rëg yëpp ma dégg ni rëg-rëg daan nañu rëg-rëg par accidentel rek lañ koy daan. am na ci nag ñoo xam ne bëri naa ñoom bëri yu metti ci ba muy gën a doon booy ñu am nañ ko daanee. mais moment bi mu téye fii Dakar dëgg. mbër moo dégg daan na rëg daa faxastalu daan ko. mbër moo dégg ne daan na Reug Reug daa faxastalu daan ko mais maa moom du bëre du daan bi mais bëre bi ñu bëre man moo ma neex. nan la bëre boobu demee. bëre bi dañoo bëre joxe ba mi-temps. Mhm. benn waaye ñëw na ci man ne ma mankat kat général yàgg naa seetaan Reug Reug mais mosuma gis Reug Reug bëre bay naan ndox. te seen làmb yéen ñaar gis naa ko muy naan. waaw kon yow jàmbaar nga quoi. Mhm. ma ne ko làmb boo ci bëggee doon jàmbaar faw nga jëflante. ak jàmbaar léegi ci bi. ci biir combat bi dañoo bëre jàppante bëre bëre bu metti mais moom moo ma dugal ci biir làmb ji. li tax mu dugal ma ci biir làmb ji mooy dañoo bëre jàppante ba bëre bi metti ku ne xam ne Reug Reug dafa am fooru zongale. zongale na la tegal gauche daw zongalee la droite. Mhm. léegi dafa jàpp sama devanture ngemb loolu bàyyi bàyyiwaat naa ko xel mu daw zongale. parce que jour bii la. jour bii la voilà. Mhm. du jëmm ji sax laa gënoon tuuti comprendre nga. ñu ci lañ jàppantee maag rek rek mu daw zongale ma. Mhm. moment bi ma zongalee nag teg ma ma jàppaat ma nit fexe ba jàpp fi mu jàppoon ma daw zongale ko mu raaj ci teg ko ci biir bëre bi mu ngi ree ndax mhm. danaan kii ban sañ-sañ la am ba pour def ma rii ko mënu maa yëkkati. Mhm. te ma nit boobu gëm naa ne man góor buy taxaw sama kanam ëpp ma doole. ci lañ bëree noonu ba ba mi-temps ñëwaat ñu daw bëree daw bañ mi wee ma daw jël tànkam. bàyyi ko fa ci laa daw futi ko. mel mhm. ni ku koy taq bàyyi ko rasu bàyyi bàyyiwaat loolu noonu daw fàqat ko ba ma ko fàqatee muy ñëw daf ma doon tegal pied pour bu ma dalee ci kaw mu mbot ma. Mhm. mais dama faa paay bàyyi benn pied bi daw laale beneen pied bi dóor ko plaqué ci suuf. parce que mu daanu. mun a jël bu rëy. waaw mais adressé nga wàcc. <laughs> moom mu mais dérangé wu ma nag quoi. Ah. vraiment ndax daan du ma yëm. te c'était la première fois nga daje. man daan ko boobay suñ deuxième fois ndax première fois daje nañ Ibamar. waaw ñu bëre bëre bu bëre bu jaxasoo. mu mu am ci man ndam. Mhm. ndax nit moom looy wax rek na nga wax si akulaay taala ah. comprendre nga mhm. mu doon làmb joo xam ne làmb ju gaaw boobu rëg-rëg rek la ñëpp di di wax ah. comprendre nga mu mhm. am ci man ndam ma ñëwaat fii ñu daje mu doon deuxième fois mais deuxième fois bi la ñëpp bàyyi woon xel comprendre nga mais mu doon jàmbaar doon champion. ndax ba ma ko daanee dégg naa ci lu ne quoi. xool ko waaw jàmbaar la. parce que aussi lii aussi psychologiquement. waaw Reug dafa am lu mu doon def ci mbër yi. mbër yi bëri parce que day ñëw si digg géew bi. di ruube di ruube. waaw di bàkku. kenn du ñëw ñëw défier ko kenn du ñëw ñëw bàkku ci wetam. kenn du ñëw ñëw lii. xam nga naan aussi mu nekk aussi avantage bu mbër di am. voilà muy tey mbër bu meli ni Zarko tey mais boo ko jàppee mystiquement du feeñ du feeñ parce que au moins gis il se déful mu ngi daw di sotteeku galaat di def te amaana sax biiram a ngi métti wala boppam a ngi ah, ah, ah. la si la dafa ñëw fekk fa làmb méttee mu ñëw prouver ci wala ci boppam mhm. te comme li Boucar wax rek début rëg rek xam la leen doon wax du séeréer ñi naan bokk na ci séeréer ñi naan nangam te làmb dafa am fu toll boo xam ne nit ñi ñoo koy def mais mhm. séeréer yi mbër rek lañ bëgg mhm. man dama naan ñu muy wax làmb sumb imagineel Dakar laan demee Tabaski nu muy mel mm-hmm. Mm-hmm. Tabaski da nga koy passé ak sa famille ñëpp mm-hmm. toog Tabaski jot yoruñu oto suñu moyen demeewul ah, noonu ñu jël ci oto yi fii moo ko rëg-rëg la fii la ko daanee ah bi mooy combat moo nekk nii. comprendre nga fi mais moom bu neex te yàgg. non te li ci garaaw mooy dama ko dañoo bëree ma daan ko làmb ji yëpp di toj. xam nga baa ngi nii. waaw ah fii laa ko dóoree tànk daw dugal sama loxo bal ko. bëri nañ combat bëri nañ combat bëri combat ma daw fàqat ko fàqataat ko noonu ci laa ko laa plaqué ci suuf. la dernière défaite de Reug Reug. waaw boo seetloo ah, xam nga Adrien Senghor amatul lii. amatul lii public bi amatu ko. ambiance bi amatu ko. du yoon parce que bëreetul ay léegi. dëgg du yoon waaw ah, mbëri bi léegi. non non xeeb bu ci xam nga. Oh, bon pour te dire rek <laughs> waaw pour te dire rek bon. bi yaa ko mujjee jël. voilà loolu fa bëggoon ñëw ak ah. la plupart. Ah. mbër day daan da nga naan mbër day dugg si lamb daan ba pare pare ci lamb pare ci lamb. waaw mais bii ma jógee ci lii. xoolal mbër moom mooy ñëw di suxlu. waaw. <laughs> bëgg ma tudd turam nag. mais bon xam naa ne. no gaan la. waaw boobu ñoom ñoo tëkkoon de <laughs> moom jour bi maa ngi moom ñoo finaalu quoi gaan seet. <laughs> comprendre nga jour bi maa moom ñoo maa ngi moom ñoo finaalu. la de kon loolu yow amoon na ci. non. lamb mais Adrien Senghor wàcc na de xam. wàcc na ba Senghor. non public bi bi yuuxoo nii nii booy seetaan vidéo bi ma toog. nga dégg public bi yuuxu bi yuuxu. waaw na xam nga lan la moo pëggul chaque jour mbër mi moo fi mën. moom mi dalaan na ko si di contre moog Serigne Ndiaye. waaw jour bi ko sawaay daanee eh, ni Serigne Ndiaye a yi ñoom. ma faruñu fenn. faruñu fenn de. te des fois ngay wax ci ci Reug Reug ngay wax ci Franc wala ngay wax ci keneen nga gis ku lay saaga ci commentaire yi. Mhm. fii ak deux ans ba Franc bëreetul léegi Brosse mooy mbërëm la lay wax. waaw wala léegi keneen mooy mbërëm. dëgg la pour te dire donc bi si arène. ci waaw gars yi waaw man moom la ñuy wax mais man moom dama naan yeggaguma fi ma jëm. li sans frappe waaw waaw li sans frappe man li may wax parce que kii dama la ne jël na ñetti oto diggante daaw. waaw ak daawati jéeg jël tournoi bu ne. Mhm. dem chef de l'état nekk fi meilleur lutteur ANPS. mais daan rëg-rëg. daan rëg-rëg daan caaka fay daan ay yeneen mbër yeneen mbër yeneen mbër. moom Franc daje daje nañ suñ première daje. dañoo mat ni waaw. am na la final boobu ñaaxaar bu ma couvrir. waaw pour te dire que rek lamb ji man lutte simple man. Mhm. waxuma ne lu mu wax ni du ko dindi de. mais mun nga ko dindi si kaw teg lu la neex. mais dañ. parce que su ma juumul làmb jooju yaa fa daan ordinateur. waaw boobu ordinateur aussi xawoon nekkoon en convalescence mooy bi mu jógee si opération bi. mais pour mu la dafa yàgg bëre dafa yàgg wàcc si mbapat bi yàgg bëri fu ne. fii ba Gambie mu dem dafa bëri si pasaran dafa gëm boppam. ne ko di ñëw daay affaire de boy town. te aussi avantage bi mooy mbër da gëm sa bopp. Mm-hmm. Pikine la nekkoon mais dafa lii dem gis na dem dem ñibbi Malika. Mm-hmm. bu ko neexoon nekk Pikine bootoo si ginnaaw Ama Baldé wala bootu si keneen mais maanaam mbër da gëm sa bopp li à chaque fois rek nit ñi balaa ñu laa gëm yow yaay gëm sa bopp balaa ñu laa bëgg yaay bëgg sa bopp balaa ñu laa respecté yaay respecté sa bopp balaa ñu laa valoriser def la mbër bu mag yow yaay gëm sa bopp def sa bopp mbër bu mag man loolu laa gëm moo tax man mbër yi. man laa gën a mën a amal relation wala affinité sax que ñi ñuy wooyee VIP wala ñi ñuy wooyee tenor wala lii. parce que man moom li may moom nit dara yéemu ci moom lu dul nga wàcc sa bopp. nekk nit. li sama benn xarit Issa la fu sa copain. li papaam di wax rek soo waxee mu ne moom papaam nee na bi mu xamee nit dina dee la noppalu ci àddunaam. Mhm. comme noo mel dee. Mhm. noo toll dee. Mhm. loo am dee. sa waay. li des nice te loo am tam fi nga koy bàyyi. aussi ma ñëwal la ci benn benn kii rek rek def na affaire bu ma marqué. général mu ngi sama gaañ la mag moom mu ne ko ana général. Mhm. loxoom bi may dégg ndax mu ngi tane jël téléphone. waa mhm. jox ma ko ñu wax. ñu mhm. nuyoo mu ñaanal ma. xam nga yooyu dafa nice. na nit ñi bàyyi xel nit ñi. ay adversaire lañ benn temps ndaw mais duñu ay ennemis. tey jii. Reug Reug boo xoroon xol bi teral ay waajuroom rek a ci nekk. Hmm. général boo xoolee xol bi teral ay waajuroom rek a ci nekk. Hmm. kon tey milieu bi nga xamante ne dañ koo bokk. Hmm. ñun mbër yi nañ ñu bàyyi bu fu la jotee nañuy jëflante. jëflante mais bu jeexee jeex na. comprendre nga. Ah. jarul yenn détails yi kii li muy wax dafa mat a bàyyi xel nit ku xam ni da ngay dee rek. jaratul yenn yi ñu ko fi ñu ko fi dund. yow Franc ñaata ngeen daje nga wax. Franc moom mosuma koo daan. mosoo ko daan dañoo mas mu daan ma. ñaar yoon ngeen daje. waaw non non daje trois fois yoo xamante ne moom ko daan. trois yëpp moo la daan moo ma daan waaw. ak benn machine waaw. comprendre nga. ñoom ñaar ñoom ñaar kan moo gën a oos. Reug Reug Franc non bëreeg bëreeg yomb na ndax li tax yomb na mooy Franc ci digg lay bëre. Mhm. bëre bi muy bëre mettiwul. Mhm. Reug Reug bërekat la boo xamante ne bërekat moo mën a daanu yenn daanu yi. Mhm. mais Franc ci digg lay bëre te Franc du bëri ci risque. Franc hmm. rasu la gën a mën dafa doon mbër moo xam ne foo ko yegg day daw rëcc. moom amul problème mu nga jàpp ko mu daw rasu. ba hmm. génn. Hmm. comprendre nga. mais dañoo doon ay mbër yoo xam ne man dama leen respecté li tax ma respecté leen mooy ay jàmbaar lañ man dama leen fekk ci lutte simple te ba ma leen fiy fekk ñoom rek laa doon dégg. man damaa forcé seen biir ba bokk. ba fu ñu leen limee limaale ma ci. fu ñu jëlee man demee naa fa jël fa. Franc nag li tax moom bëree bëreem ak Reug Reug ñoo yam Reug Reug da bëri ci semaine bi trois fois. Franc semaine bi mën na cee bëre benn yoon wala ñaari yoon ci li ma bàyyi xel bokk xaw ma nag avant may ñëw. Mhm. mais souvent ñun mën nañoo dugg ci àll bi bëre ba benn dimanche ñu ñëw ci ngay.